yoonu murit moom jigéen xam nga yoonu murit moom dafa nuroog lislaam tàmbali bi lislaam lay nurool lépp lislaam lay nurool boo dee xool soxna yu baax yi daroon ko tedd ki ku ci nekk am na roy looy koy nurool ci jigéen yi saxaabaay saxaabiyaat yi soxna jaaro bi su ku gën a kawe koo xam ne moom bët bi def bët bu rëy la yore nee na moom bëtub yonent la doon xool munumaa jurub yonent léegi lu topp ci yonent wala loo xam ne nii mooy leeral wala liggéey lu yonent liggéey ku mel noonu laay laay góorgóorlu pour pour jéem koo am jigéen la te nii ñuy joxee maanaam nii ñuy jàngalee soxna jaara ba tey dañoo juum ñun maanaam foto soxna jaara bi ñu indi benn maire bu màggat boo xam ne day muuru déedéet soxna jaara ñun ñii toog nii ñëpp ñoo ñoom bu ñu doon xool suñu at ci zahir ñoom soxna jaara ñu wàcc liggéey noonu lay tolloon 33 ans fa fa ñuy soxlaa jigéen ci taar mooy fi jigéen ñi toll tey ci connexion yi li nga xam ne tëlatuñ dara lu lool te danañ ci ñëw foofu la soxna jaara wàcc liggéey. soxna faat isa jóob waajuru borom daaru tey nu daaru mel soxna faat isa la nu borom daaru mel soxna faat isa jóob la lim am ci sëriñ Tuubaa da koo liggéey ak mbaaxam ak goreem ak xolam bu yaatu moo ko ko may ak yaatu dënnam ñoom day amuñu woon jot sëriñ Tuubaa it njabootam bu jigéen gi yépp la tàmbalee ci soxna Faatija ba ci soxna Maymuna ñoom ñëpp yàlla taw féexe na leen ñu doonoon ay boroomi xam-xam ay liggéeykat ay murit bariwaana ñu ñëw ci sox ci doomam njabootam ku tedd gi andil ko kaamil mu ne la demal soxna Faatija boo demee mu jàngal ak taalibi wala ab liggéey kon xam-xam day ànd akub yar léegi nag toll ci mujj jamono lañ toll moo tax lu bare bare bare bari feeñ te lii yàlla junjoon na ko xañ na jigéen da ci gën a fës waaye suñ borom junjoon na yàqute gii dana am waxoon na yonent bi ne ko iqtarabati saa iqtarabati linnaasi xisaabuhum bokk iqtarabati linnaasi xisaabuhum wa hum fi xaflatin mu'riduuna nit ñi daal dafa mel ne yowmal xiyaam saa yuy gën di jege rek ñu koy gën di ñaawal di ñaawal bis bi di cokkaas daal di wane ne bis bi moom faale wuñ ko te bis baa ngi dëgmal di ñëw di daw nit ñi faale wuñ ko rek iqtarabati jege na wahum an wahum fii xaflatin mu'ridun ñuy wane ñuy wane sàggan sàggan lu rek te moo ne tey day boo demoon armeel yi armeel yoo man di dem dëkk boo man di dem armeel ci àdduna bi yépp armeel yoo man di dem boo fëggee kenn ne ko loo gën a bëgg Sëñ Tuubaa nee na lenn lañ lañ lay tontu wa arxabul asyaai lil amwaati raddun ila dunia ma al xayaat benn tontu boobu dellu àdduna dont benn seconde la luñ baax baax ñépp nag ñoo ci yem koo demoon ne ko waaye loo gën a bëgg du la wax ne la nga wàcceel ma kaamil du la wax ne la ah xanaa jéem a nangama ki nangam danaa la dellu àdduna donte seconde la rek man noyyi benn noyyi boo xam ne dama koy def ci lu baax tëddaat ak moom ñu fay ma ko yow nga def ci àdduna démb ba tey suba ginnaaw suba at yii di ñëw yàlla na gën a yàgg nga des ko ci àdduna bàyyiwoo xel lool jigéen fi mu nekkoon démb boroom xam-xam yi nee nañ jigéen yi léegi nii niñ mel léegi jigéen it jamono ji niñ mel léegi léegi même xadaaraat yooyu ñu doon wax civilisation yooyu ak mbon amutoon jigéen ñi feeñu lu ñu doon bon ñoom góor ñi ñoo bonoon ya fa nekkoon ci jamono jooju di toroxal jigéen léegi nag jigéen ñi seen bopp nag ñoo mel seen melo yi ñoo indi melo woo xam ne nii daanaka ñoo yàq jamono bu njëkk luñ daa wax yàqu ci jikko yeeg cere yi lañ daa wax ak rajo yi loolu moo nekkoon débat yi cinq ans ci ginnaaw loolu lañ doon def ay thèmes léegi yàq ci jikko yeeg internet bi scandale yi am ci internet bi kenn xamu nu mu toll sëy yi tas ci internet bi kenn xamu nu mu toll kër yi nga xam ne duñ tuddoon ci li ko waral mooy internet bi kenn xamunum toll borom xam-xam yi nga xam ne dañuy gëstu ci wàllu net bi nee nañ ñu ëpp ci ñuy connecté ay jigéen lañ connexion yi ñu ci ëpp ay jigéen lañ te li ci gën a yéeme mooy jigéen ñoo xam ne nii seenum njàng soriwut wala jànguñ wala jàng nañ sax dañoo bëgg lu bon intellectuel yi foo leen mën di gis heure sàngam la ñuy connecté deux heure sàngam ñu déconnecté xool li ñuy xool tontu seen i message déconnecté nekkaat ci beneen liggéey ñun ngay gis suñu jigéen ñi tey 24 heures sur 24 boo xoolee ci net bi gis ko en ligne léeg-léeg sax dañ lay cokkaas ku ne ci ligne bi esthétique wala ku mooy woo appel vidéo àgg nañ foofu di léegi yàqute gi am ci li ñuy wax whatsapp facebook instagram ak senap ak xeeti jokkoowukaay yi nii kenn kenn xamunum mel bu ci nekk rek tas na dëkk bi pourtant yooyu de ba muy sosu mën naa la jox exemple rek ci facebook bi muy sosu affaire jàngale jokkoo ci université moo taxoon mu jug maanaam étudiants yi di jokkoo seen biir di joxantey cours xañ na dem nañ ba yokk ci yeneen données yoo xam ne nii dem na ba ëpp na njariñ li ëpp na loolu te mën nañ mënoon nañ koo jëfandikoo ci naneen mënoon nañ koo jëfandikoo ci jokku mbokk léegi jikko yi gën a ñaaw nga xam ne moom lañ gën a bañ ci jigéen su la neexee nga tëju sëb néeg di ko def ci internet yi nga xam ne da nga daaw bu njëkk da nga daaw wër def lu bon ba sonn la ko am léegi jëratu ko cent franc connexion nga tëdd sam ni def lu bon ba doyal jigéen liñ baaxoon a xam mooy défilé yi ñu doon def ñu ñu ko doon xam ñuy défilé jigéen yi ñu doon def nga xam ne ko moom mannequin la ko moom lu ñu koy wax noonu nga xam ne dañuy solu jaay seen bopp wane seenu taar léegi jëratu ko soxna yi ñu ngi koy def ci whatsapp yi loo xew ñu solu génn ne nii laa def tey la ca gën a garaaw sax te xamuñu ne ki am soxna dafa am lu mu ko war a ki am borom kër daa am lu mu war a jëfandikoo internet ki amul borom kër daa am lu mu ko war a jëfandikoo ñun nag lépp la ñu rëbëjee rek jaxase daa mel ne jigéen ñi am ay borom kër sax ñoo ci gën a ñoo ko gën a tas da ngay gis day solul ba jekk génne fotam daan ne alalu borom diw yow booyee alalam doo dem solo toog ci wetam lu suñ yoon ñun wala fotowu sa foto naan màggal validé yooyu nga xam ne ñun ay li ci gën a yéeme mooy yu baax yi xew-xew yu baax yi la ñuy jël di ko indi ay ay moo yoo xam ne nii boo ko jàngatee ba càmbar ko ay xeeti bàkkaar yu rëy rëy la ci xamuñu ko màggal gi nga xam ne dañ ciy jokk mbokk ca waañoo nga war a nekk ah suñ mag bi daana dégg naa daana wax naan bu ma saa gis jigéen joo xam ne wala góor goo xam ne dem nga ca wanagu jigéen ña dana la mere mere moo xam ne nii dana ko dana feeñ ci kanamam ah léegi nag moom màggal yi nga xam ne yu tedd la boo dee xool cosaan yi mooy jokku mbokk jàng alxuraan léegi li ñu xaar mooy bis ba jot nga def say toilette ësët lu mat nangami personne seetaan la capturé ko denc ko di gis say say say cër nu mu leen neex fi mu ne Arabie Saoudi gii dëgg la duñ suñuy naw de ci diine sax man jàpp naa ne ñun ñoo leen ëpp diine man sama bopp réewu arab yi waaye am na côté boo xam ne man dama leen cee naw jigéen dafa cher baatu jigéen nii wala nopp jigéen nga gis ko fa dafa jafe bëkk de moo njaay la jigéen tàmbalee dawal oto foofu nopp jigéen nii nga gis ko fa moo tax fi ne cani jigéen ay millions millions lay doon cani jigéen nii foofa ba tey jigéen dafa jafe lool ña yurut ay millions ñi ngay génn di dem ci yeneen pays arabes yi ay Maroc ak Tunis di fa wuti soxna lu tax mooy sart yaag lu waayam teg ci jigéen mooy yu démb yi amoon jigéen cher jigéen def jigéen bu wanee boppam rek yëf yi lépp kumpa la waaye yow koo xam ne bala nga koy denc da nga gis léppam da nga xam léppam dafa mel ne léegi dañ koy jël mu nekk ab dëfelukaay maanaam foo xam ne daal dañ fay wanewoo foo xam ne dañ fay amr te lii cosaan la mooy boo xamee boo gisee ñi créé wàllu esthétique li ñu ci jublu woon mooy ñi nga xam ne dañu am lu ñuy publicité wala lu ñuy jaay léegi yow nga nga jël marchandise toppale ko fële jël sa jëmm mu teg ko fi ne man maay marchandise waaw xañ na góor ñi it am na yeneen waaye comme waxtaan ci jigéen ñi la jëm lépp fa la jëm bokk na ci kawteef yi ci am bari na ay sëy yu ci tas kenn ku ci nekk ci ñun ñii mën naa wax sëyu diw ba wakaalu sàngam yàgg dañoo dégg ku jaawalee wakaal yóbbu ko faneen ak faneen wakaal yi mi ngi tas dëkk bi bari na jàmbaar yu daanu yoo xam ne wakaal yi leen daanaka bari na ñun jàpp ca wakaal nag wax dëgg yàlla bu njëkk li nga daa gis mooy ci li ci gën a yéeme am na ci loo xam ne nag góor ñi xamaguñ ko te gëstu nañ ko ba xam ko mooy dépense yi ñu joxe connexion yi ñu jënd nii fi ne téeméer yi nii dépense yi la ñu wàññi di ci jënd ay connexion ñu ci bari mooy ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo net bi école privée yi am na benn xale boo xam ne dañ koo jàpp ci école privée yi da doon jàng di fay léegi ñun buñ ko yo- joxee fayam ndekete ay connexion pass connexion la ci jënde biñ gëstoo ba gëstu mooy gone yi jigéen yi nga xam ne ñoom xañ na amaguñ borom kër ñoom it noonu lay demee ndekete paas yi ñu leen di jox ñuy jàngeeg seen wàllu ndékki yéeg seen wàllu fayu yeeg ndax liggéeyuñ ci lañ koy def wala dugalal ma crédit doo ma defal foto sànga di dugalal ma crédit ma ma ma yónnee la foto yi xeet yooyu xeet yi yàqute googu bari na ci li sallallahu alayhi wasallam waxoon ne bët day dana njaalo xol dana njaalo ñu mel ne dañ ne ko waa bët nu muy njaaloo mu ne bu xoolee lu mër sa xool bu njëkk da nga daa toog xëy suba bëgg a njaalo ba sonn doo ko gis léegi mën ngaa toog sëb néeg njaalo ci say bët nu mu la neexee nag loo ko laaj Google mu wax la ko ak lu mu mën a doon lu bon loo ko laaj mu jox la ko façon boo ko bëggee mu jox la ko anam boo ko bëggee mu jox la ko ndeysaan bu njëkk da nga daa gis maire yi foo leen masaa fekk kurus la ñuy yor ah di jéem a jàngatu ah ba ja da kër yi foo dugg loolu ngay gis seen gone yi léegi maire yi koo ci gis rek mu ngi yor téléphone am kaay wan ma ne ñuy wakaaleeg dugalal ma connexion bi ci lay nekk ba takkusaan du yor kurusam du tala jàng xasida ca rajo lañ daa yor ndeysaan di diglu suñ sàmbay rajo lañ daa yor ndeysaan di diglu suñu Abdourahmane buy joxee njàngaleen bi wala ñuy diglu waaree suñu Abdou Khoudoss waaye léegi foo leen fekk rek ñu ngi ci connexion yi ndeysaan adduna joo xam ne afa xasibtumoo annamaa xalaqnaakum xabasan nga xam ne estati yi ree yi ci la ñuy nekk rek di ree adduna du ñëwuñu fi ngir ree sallallahu alayhi wa sallam nee na wàññi leen ree yi kay bu ngeen dee jooy sax moom gën a ree ndax ëllëg kenn xamul nooy mujje sa diggante yàlla sa téléphone bi ñaata contact nga ci am boo xam ne ni contact sàngam bi duutu connecté ba ilaa yawmi diin borom daa faatu sa ami Facebook yi kan nga ci xam koo xam ne nii boo commentaire du tontu te boo demee da nga ko fekk commentaire am ana borom faatu na loo fi def rek dafiy def lu la neex supprimer nag supprimer tout supprimer lu la neex waaye dafiy def malaaka yi ñoom enregistré nañ ko ba pare comme caméra yi ñu gis boo xefee sax ñu génn ko askama malaayika yi ñoom seeni caméra day génn bay génn sa biir xol bi li ci nekk li li li suñ borom noonu tere naan di leen bàyyi tabarruj génn gi yë jigéen ñi njëkk yi doon génn di leen ko bàyyi xam nga yàlla dafa demoon sax ba tudd ne yéen jigéen bu ngeen dee dox di leen dox ndànk doxin ndànk moytu leen di dox doxin woo xam da ngay yëngu ba ku nekk sa wet wala koo xam ne da doon nelaw wala nga romb ko nga yëngal ko wala nga wala mu yëg ne jigéen mooy romb àggoon na ci ba ci loolu di ko wax moom yàlla suñu borom wala yadribna bi arjulihinna bu leen di dóor seen tànk yi li ya'lama ma yukhfina min sinatihin min sinatihinna wa tubu ila allahi jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun suñ borom nee na yéen jigéen ñi bu njëkk nee nañ loo daa xàmmee soxna yonent bi mooy mën ngaa toog nii ñu romb fii jaar lu mat fukki sa soxnaam yëpp jaar bi te doo ko yëg du am benn bruit ndànk la ñuy dox yàlla tagg na leen duñ yor dara luy xeeñ loo xam ne buñ jaaree même buñ bu yënguwut mu xeeñ duñ yor luy yëngu léegi maanaam dañu maanaam dañoo mbon gi dañ ko indi beneen système mu mbon lañu indiwaat léegi beneen façon mboneen lañu indi léegi lépp looy def barab bi muy réseaux sociaux yi léegi àgg na ci barabu ngistalukaay la barabu ngistalukaay bu njëkk ngistal dafa jafe woon léegi man ngay def jaamu yàlla bëgg ku la gis doo ko gis léegi su la neexee nga def jaamu yàlla goo xam ni àddina bi yépp dañ koy gisandoo mu doon ngistal barabu jëwukaay la mooy whatsapp yi nii da ngay gis koo xam ne nii barabu jëwukaay vocal yoo xam ne jëw bari na ay ay ay jëw yu ñu génnee yoo xam ne tas na tasaaroo na diw mere na diw diw fase na diw vocal sàngam lañ dégg bu njëkk xeeti mbon yi ku ci ku ci yeewoon sa maamaat ba wax ko yii nii danaan la yow li ngay wax fu mu am suñ borom tagg na jigéen yi nga xam ne xaafisaat lil gayb mooy soxna yi nga xam ne buñ nekkee seen borom kër même seen yaay duñ xam sax li ñu nekkee seen borom kër araam na ci jigéen muy nekk li sax yaayam nu muy nekkee borom këram loolu suñ borom tagg na jigéen ñi nga xam ne dañoo am sutura seen borom yi kër léegi groupe yi jeeg yi am na yoo xam ne dañ koy nett li ñu nekk ci kër gi ay groupe yi jeeg groupe yoo xam ne ni jeeg gi dañ fay nett li ñu li ñu fanaanoo li ñuy séq seeni borom yi kër allahu akbar xaafisaat lil xayb soxna jaara bu de sëñ bu mag bi daan wax naan soxna mariama de ku am sutura la ak fii nga def jigéen dañ jigéen maanaam baatam dafa am taasir dafa am dafa am jeexit waxuñu ne dafa aram de mën nañ koo jëfandikoo ci lu baax ndax barabu jokkookaay la paaka la ni paaka mel ci kër gi nga xam ne góor gi day dem ca marché ba jëndal la paak booy dagge noonu la mel paaka boobu ngay daggee boo ci jubloo def lu bon mën nga caa def lu bon mën nga caa rey nit mën nga caa dagge mën nga caa gàj nit kasaalika réseaux sociaux yi nii la mel mën nga cee jariñee mboolem téere yëpp am nay vocal lu tee nga ciy jàng lu tee ngay dugg ci groupe yi ñuy jàngale tere woon nañ jigéen mu yëkkati kàddoom léegi ci da ngay xool rek ku ne ci ligne bi ngay vocal rek di vocal rek diw sàngam ki ne ci bunt bi maa ngi nuyu nangam nangam di vocal di dem rek te sax yow xamoo ne sa kàddu gi awra la sa vocal bi dafay def ba ilaa yawmi diin ëllëg yomal xiyaam suñu borom nan la ko tegal ne la xanaa téréwuma la woon nga yëkkati sa kàddu loo koy wax nañ def ndànk ci réseaux sociaux yi bariwaana barabu fenukaay la li ñuy wax xis xis mooy tricher barabu tricher wukaay la xis mooy wane loo xam ne nii te dëgg-dëgg demewul nii léegi defal lañu application yoo xam ne photo bi nu la neex ngay mel say bët yi nu la neex nga koy yokkoo sa bakkan bi nu la neex nga koy def sa nangam bi nu la neex nga koy def nga istati waa ji bëgg la ñu ñëw ñu wax am na koo xam ne nee na daa am ko mu gisoon bëgg ko jógee ko ma réew réew ba mu ñëwee nuyu si ko nee na ba muy dem sax tàggu ko daa bàyyi ba mu ba mu dugg si ko may ndox mu génn daw dara ba xis kay la gis na ko ci photo yi yónnee na koy photo ak vidéo yoo xam ne monté na ko nu ne def na ko ndeysaan nee na mu jugee réew ñëw ñëw ca dëkk ba dem di ko seet nee na mu ñëw ne ko diw laa seet mu ne ko maa ngi nii ñu dem ci saal mu dugg di ko may ndox nee na ma génn gaaw daw bàyyi ko supprimer numéro ba loolu lu ko fi jar dara bu xisukaay la xam ngeen jàng nañ ci fekk ñu ne jàng nañ ci fekk ñu ne soxna yi am na yoo xam ne bu ñu la ko wanee ba nga dem ba ci laylatu duxul bis bi ngay àgg ca moom mu am lu mu la nëbboon sañ na laa delloo sa can nga demaat sa yoon dama ne am na ci fekk jàng nañ ci fekk ñu ne jigéen gi bu amee lu mu la nëbb ci boppam buñ la amee lu ñu la nëbb ci xale bi jigéen bi nga dem ba ci laylatu duxul bis bañ la koy jébbale nga dem ba gis ne lii dañ ma ko cee nëbboon ci moom su la neexee nga jug boo xëyee suba ne jox leen ma sama can may naa ko baatam dem sa yoon doo ci am benn bàkkaar tiyaaba sax nga tiyaab léegi loolu amatul lu leen neex la ñuy def seen photo yi barabu ngistalukaay la boo nekkee ca barabu maam jaara ma fasaaleel naa ñëpp lu suñ yoon yoon barab la boo xam ne xisukaay la comme ni ma ko waxee léegi yooyu yëpp nag ay xeeti jikko yi ñuy wax yëpp yu bon yëpp dañ koy fekk ci réseaux sociaux yi daanaka dama préciser wax ci li ñuy ut- ëpp li ñuy utiliser mooy whatsapp barabu chantage la bari na kilifa yoo xam ne ni noqi nañ joxe bay bëgg a dee boobu joxut ma génne fa tey wala ma génne vocal ndeysaan riba la ak mbon la ci mbon rek am na famille boo xam ne daanaka tas na ca li ko waral mooy réseaux sociaux yi ay sëy yu bari yu baree baree ci tasandoo fekk scandale boo xam ne ni ci réseaux sociaux yi la gis nga bu yàlla gi ñu toon ne yonente du ñëwaat yonente dana ñëwaat wax ci lu jëm ci réseaux sociaux yi waaye nag moom moo wax ci alxuraan ne kii mooy mu jëntalu yonente bu ñëwutoon dana am spécial yonente boo xam ne dafa spécialiste ci lu jëm ci wàllu réseaux sociaux yi nga xam ne ci loolu lay wax waaye nag sallallahu alayhi wasallam ab risalaam mate na lu ne rek ci ay waxam mën nañ koo indi dëppale ko ak jamonoy tey kon lii buñ ko toppee mën nañ cee wax lu baree baree baree baree bare fi ñuy tënkee wax ji rek mooy la yàlla waxoon ne wa tiini wa zaytuun suñ borom giñ ci garabu tiin ak zaytuun ne man maa bind doomu aadama ci lam gën a rafet mboolem li yàlla bind nit a ci gën a rafet nit a dàq mala yi nit a dàq jinne yi nit a dàq sax malaayika yi dàq ci jëmm dàq ci jikko nit dem na ba gën a rafet jikko jinne yi nit dem na ba gën malaayika yi gën ci lu yàlla bind lépp waaye nit yi dem na ba gën a yaafus ulaayika kal kal anam la yàlla wax am na ci nit ñi ñoo xam ne ni dañoo mel ne bàyyi ma bal sax mu dem ba ne sax ñoo gën a bon bàyyi nañ su ma raddannaahu asfala saafilin mooy lii nag tey yow yàlla jox lam xel jox la alal jox la jàmm nga topp réseaux sociaux yi di mooy yàlla di bàkkaaru rek sa temps bi yépp nga def ko ci bu njëkk soxna yi mënoon a ijji foo leen masaa fekk dañu yori xasida di jàng léegi da ngay jàng takk say écouteur jàng benn bay tontu tontu benn jàngaat tontuwaat te jàng bi dañuy soxla ngay ngay teewlu booy jàng waaye da ngay takk écouteur groupe bu ne nga diglu ko yaa ngi yor sa jaali batu maraaxib kat waaye ku wax nga diglu kon mbokk yi war nañoo bàyyiwaat xel yii nii ku ci nekkoon nekk goo xam ne nii yaa ngi ci doon juum sa diggante sa borom wa tuuboo ilallahi jamian ayyuhal muminuun sun borom nee na man ba ñu ma ku ma tuubal ku ma tooñ tuubal ma sax moo ma gënal ki nga xam ne du ma tooñ loolu la wax ëllëg yomal xiyaam àjjana am na bunt boo xam ne nii ña doon tuub ñoo fay jaar daa mel ne Serigne Touba dénkaane ba mu dénk noonu soxna Penda Diop day mel ne daa mel ne ñun jigéen ñi tey jii yéen ñi jëfandikoo réseaux sociaux yi day mel ne dénkaane bi ku leen ko fàttali dana baax ci yéen ca moom la ñuy tëjee waxtaan sëñ bu mag bi daa waxoon soxna Penda Diop ne ko alayka bi sabri wa taqwa rabbik soxna Penda maa ngi lay dénk muñ muñ mooy amoo connexion nga muñ waaye di bëgg a dee fu ne nga lebi xoolal ma nañuy lebe leb nga tigo bay bëgg a dee leb nga orange bay bëgg a dee leb nga koñ bi leb nga waa kër gi te mënoo muñ alayka bi sabr amoo téléphone bu am connexion muñal danaa ko am de moom whatsapp yi moom faaw mu am ko moom di jog ko waa diw alayka bi sabr wa taqwa rabbik muñal boo ko amut ay soxna si yow mi nga xam ne amagoo ko yow mi ko am it muñal lu bon li ci nekk yow mi ko am am connexion bu baax am nga connexion un mois am nga téléphone boo xam ne whatsapp bi moom du fees da ngay photo bay bëgg a dee muñal lu bon la ci nekk bàyyil sa borom bàyyil xel sa borom fi sirri wal jahri la ca teg sëñ mag bi bàyyil sa bàyyil xel sa borom fi sirri ci nëbbu ak ci lu feeñ ana kan moo gën a baax ki wéet yaru connexion am yar téléphone am mën a dugg fu bon mën a wax lu bon mën a def lu bon defu sàkku nañ ci yow lu bon nga bañ góor ñu defuñu de jigéen ju leen wax seen bopp jataay buñ toog seere la fa lu baax loolu moom xam naa yéen soxna yëgagu leen ko waaye góor ñi fi ne jigéen ñi ñuy tàgg mooy ñu leen wax seen bopp ku sàkku ci yow lu bon wax ko boppam bu aw turam rëy ci moom mukk ba nga am complexe ci moom bu aw santam rëy ci moom rëy ci yow mukk ba nga ba nga tax ba mu tax nga def lu bon ci moom alayka bi sabri wa taqwa rabbika fi sirri wal jahri sëñ Tuubaa nee na dénkaane bu njëkk bii boo ko defee boo muñee fa yaxfiru lakk suñ borom ci boppam day jékki-jékki di la jéggal te doo ko jéggul duuni ala tawbati bi ijtihaadi soxna Penda maa ngi lay dénk ngay sax ci tuub ak a jégglu am nga vocal bu baax boo xam ne nii ay dénkaane la nga partagé ko jàllale ko waaye ni ñu saware ci partagé lu bon ni ñu saware ci partagé ay reetaan ak xàqataay loo xam ne dañuy reeloo waaye duñ partagé mukk daanaka vocal yi sa ñëpp du ko dóos duñ partagé mukk vocal yi suñ sàmbay wala vocal yi suñ Muntaxa Basiir wala suñ suñ Abdu Raxmaan wala tamili li siwaa rasaadi soxna Penda maa ngi lay dénk bul nekk mukk ci lu tu njub photo profil sax sañoo ko def sa jëmm ca dëgg dëgg lislaam mooy waxuma la ëstati moom waxaali moom sa photo profil sax sañoo ko def bu ñu waxee dëgg dëgg lislaam sa photo profil sax sañoo ko def waxuma la nag partagé loo xam ne nit ki bu ko doon seetaan fii ba suba du jeexal say album ngay naan ay souvenir rek ay màggalu 2010 ak lu kenn xamul duumi alal xumuli wa tasatturi soxna Penda maa ngi lay dénk ngay nëbbu say cër foo man di toll di suturaal sa bopp sénaat yi nga xam ne da ngay jékki-jékki man démb laa doon laaj comme dama am waxtaan ci réseaux sociaux démb laa doon laaj lan mooy sénaat laa dajale suñu waa kër ca saal ba di leen laaj sénaat ñu di ma ko wan yàlla seer na ko démb laa leen laaj lan mooy sénaat man damaa bëgg mooy waxtaan bi mën a jëlal ay exemple ci sénaat nag ñu ne ma xuma kocc am na ku nekk ci sénaat bi ku ñuy wax kocc bar kocc kocc nan ah kocc bar ma la nee nañ mi ngi tax sénaat sénaat bi xam naa da ngeen ko war a xam nee nañ daal kocc ci ba sénaat bi la nekk maanaam daal ay scandale rek lay partage ak a génn ak di monté yi lu kenn xamul wattani bil xiibata wa takabbura wa asbiti sukuuta wa tasabbura soxna Penda dellu mooy tandiku jëw léegi bu njëkk liñ baaxoon a xam mooy jëw ca pénc ma lañ koy defee wala ca ëtt ba léegi téléphone yi gaa yaa ngi ciy jëw léeboonte bi nag boo bëggee léebu sa kii da nga koy estati wala nga xool ustaas boo xam ne day gaaruwaale wax ak sàngam sàngam ak sàngam nga estati wax jooju jubloo ci lu baax kat bëgg diw liir ko rek léeboonte beeg wanawente geeg baa xol yaa ngi féex lu si yow jéem a la féexal sa xol ci lu baax ah boo bëggee féexal xol yi tegal leen xasida yi daaji ma ngi ay ma ngi bayit yi xol yi kat mi si gir ko féexal da koy lëndëmal ak pomi kon waaye bokk na ci xam naa ne dañuy tënk ndax waxtu yi mi ngi sori bokk na ci liñ baaxoo woon a xam démb ndeysaan ci soxna yu baax da nga daa dugg ci kër fekk ëtt ba ñëpp toog jàkkaarloo lal basañ ñuy attaaya di waxtaan dégg nga mbokk yi ñëpp toog léegi bu ñu toogee kenn ku ne nag warante ginnaaw yaa ngi sa connexion kenn du wax yaa ngi wax ak waa diw waa nangam waa nangam di envoyante mën ngaa to sax barab bu tedd barab bu am orma di fa liir wala diglu wala partage loo xam ne nii dëppawut ak barab waxtu yépp nga jeexal ko ci ci ëllëg yomal xiyaam daanañ la laaj connexion li nga jëndee woon connexion foo ko foo ko foo ko jële ak connexion bi ci lan nga ko utiliser bokk na ci li ñuy laaj ëllëg yomal xiyaam lépp ci yàqute gi nag wax dëgg yàlla scandale yi soxna yi lay bàyyi ko neexut ba neexut kon ñoom seen bopp war nañoo yaraat xale yi bu baax a baax a baax war nañoo yaraat seen bopp bu baax a baax a baax ci lu jëm ci